maa ngi leen di nuyu di leen seet di leen ziar ah naka ngeen def ewoon nañ jàmm yendoo ko yal nañ ko fanaane <laughs> wóoy waaye maa ngi wax ne maa ngi bëggee suma brother brother Melvin Roberts ah suma sista boppa ñi nga xam ne dañ leen war a celebrate mooy Néné Fredé Gomez sister Néné ca kaw ca kanam ah bàyyi sa liggéey tontul la ndax ah, ah, coow li ci pindub teen bi gaañi amut baak la boo gisee coow li bare ñëwuñ Facebook dem ba eh, Twitter ne dañ laa gaaruwaale wala dañoo defantee yow and this is the nonsense thing about Gambians suñ amee bif ak yow dañoo dem ut seen kabudu jeeg bu forox ñoom mutuñ de dañ manqué ni ñett yu juróom di séddoo dañoo dem kafungante kafung kafung seen group gu wéet seen jeeg ju ndaw ak seen wang yu di form forma bu baax xanaa yi ngeen jënda yi leen Chinese yi jaay ak ak ak tooke si yooyu ngeen ñoo reyee Facebook ah moo tax ñu dem ba Twitter ne dañ la faa gaaruwaale waaye xam nañ ne social media lu fi waaye def ñu xar gatam jënd bonbon te dara du ci xew dara rien de soo ma bëgg nag ngeen lego toog ngeen dal si Gambia xam leen seen boppa yéen western world bi recognize suñ leen Gambia recognize suñ leen xam nga man musuma xam Gambia am na ay kokomina féministe ba ci keesi boobu bii do doog a kon they exist in the Gambia I never knew you guys existed me all the time I thought you are all all hacks so little did I know you guys have to pick and choose who to farle Why? nee na da ngeen koy gis ngeen nit ki su defee lu warta wax address leen ko and then you move on why you guys are so bitter you guys are so petty you guys are so fake yéen foog ngeen di only thing lu leen di make ngeen feel proud or ngeen feel big Moy to attack another woman fuck off leen fere dem leen ngeen toog we will not let you man I'm not an activist I'm not a feminist but God knows the soul and attaqué ken. I'll come I'll come to your asses one by one dinaa leen ñuus ba yeew leen ci buntu géej gi who die and papa yéen yéenay kan yéen nee na Freda du leen tontu xam naa di ngeen ne kii moo waane lu tontu leen nee na maa jigéen la nee naa leen man suma far bi amul jigéen ak góor damay seet fi dëgg nekkee ma seet ki nga xam ne moom lañoo ñoo néewal doole ma yëkkati la man lii this is the life I live man ooyu ma benn koko mi na màgget buy jaay ticket ci social media bi oo yéen balaa ngeen di dee seen ween yaa ngi mel ni mbuus mbuusi ayis yu bona ngeen éegal seen ween yi ba fii ñuux ci ay kawas ak lu non seen su nekk ay tiisaat pour mu jóg taxaw seen ween yi yëpp a ngi xubu daasa xubu daasa xubu daas ba def ay ay sidit mu ngi mel ni ay train eh, railway ngeen yéen da ngeen di attaque Nene, yéen nene, leen gën starting te moo leen di gën ending xam ngeen li tax neene def na liggéey boo xam recognize nañ ko ba di ko ba di ko celebrate what did you guys do the only job that you guys are good at is lying and even that lying you guys are not good at it you end up fucking it up for Sainabou you came on social media lie for Sainabou and fucking her up along the way so who who die and say that you guys are God pour ngeen di pick and choose kan ngeen di faral si kaw fen ba pare di attaque ñeneen ñi nga xam ne ànduñoo yéen yéen yéenay kan yéen foo leen touch ak lan ngeen mun and all Nene said on Twitter was mu ngi celebrate bopam ne award bi mu ngi ko jagleel jigéen it's for all the women in the world that's exactly what she says this award goes to all the women in the world and mu am some pettiness bu ngeen am the audacity the guts pour ngeen comment si page am te moom ñëwut si seen page yi parce que gis ngeen yéen màggati caga yi da ngeen yabaate So leen ñëwee di all holy than down on social media nan la dem tuuti rek yéen a ngee muuru di roof ñu ay ñun xam nañ leen get out ngeen dem ci ci page am di ko disrespect ah uh, a woman who support allergic rape. I am a woman, but I don't want to be part of it. Fuck off. Karabuga Ngenbok are part of what we're fighting for. We're fighting for injustice. We're fighting for corruption. We're not fighting for your nonsense rape victim that there, there is no rape in this case. You guys want to be, want to be noticed. You guys want the Western world to know that you guys are doing something so that they'll send you guys money. Is that why you guys are fighting? jël leen xaalis bi jël fen yi jël yëpp jël leen ñun xëccoowuñ ko ak yéen xam nga ñun lañ lañoo ñoo prevent ñu nekk ci mile two bi toog te defuñ gara ñu ngi leen di jooj rongle ñooñu lañ war a génne ñu dem liggéey toppatoo seen soxla ak ñeneen ñi nga xamante ni lii dal boobu dina leen dal ñi ñun loolu lañoo ñoo try pour stop ba pare corruption bi si suñ dëkka ñun lii la ñoo try pour stop ñun li ñoo wax mooy all the millions you have ni in dugg or oh, billions in dugg Gambia during the COVID Why look at every every city or village amut at three star hospital because xaalis bi dugg Gambia on now. i am lolu. We're trying to fight for development in the Gambia we are not fighting for your pettiness and who who is known who got the most followers and who is known by the western world no hey ñun we are proud of being a Gambian amuñ dëkk mun naa rafet suñ eh, su gën a rafet suñ dëkk de waaye luñ bari le bari le luñ rafet rafet dañoo dellu si waat fii Gambie ndax banta du yàgg si géej bi suba la ko jësit yéen képpee leen doomi jàmbur ji kii moo leen raw kii liggéey Gambia tax mu taxaw MP loolu day ko te di ngeen ko déggaat ci yeneen a yeneen xool leen Afrique ak nim réyee ñaata continent wax leen ko yéen yéen da man yéenay a dafa nuroo añaan yéen li ngeen di def ba taaru nee na yàllaa ko ko jagleel moo leen gën a xees moo leen gën a intelligent moo leen gën a am classe moo leen daaxa english moo leen gën a màndu moo leen gën a connected moo leen ëppa xoolal jagar jaagar xanaa kon yéen war ngeen a bàyyi nee ne yéen neen yéen ak nee ne assembly moo leen boole bokku leen classe Yen, yen, billahi wallahi talai, no, jegi Gambia on social media, you guys are so behind, ba nga xamante ni yéen soo leen ngeen da ngeen di fight da ngeen di fight injustice but yen seen injustice along the way da ngeen di attack yeneen nit for you guys to be noticed or for people to to to to subscribe on your page is that what you guys are doing because right now nobody is watching you guys so the only thing lu ngeen di def pour nit ñi seetaan leen mooy da ngeen dig into someone fuck off leen nag soo leen nekkee ci loolu kettu leen ko bàyyi wax naa leen ne man damaa bari lu ma rus damaa bari lu ma rus ba ngeen génnee malaani kiiraay gi ma leen iroon ma jàkkaarloo yéen man dem dëj ak dem génte laa imale fu ma si dem ñu ñuus maa jox ceebi yàpp du caaxaan yéen lan la yéen xamul leen ne mun ngeen a support fi ngeen di support ñu support fi ñoo support because su fekkee ne yéen li ngeen di wax dëgg la ngeen ne injustice ngeen di xeex ñun tam di same thing la ñoo xeex injustice waaye ñun waxuñ ne dañoo ñun li ñu boob wax rek lañ gëm réebu waaye yéen soo leen ñu bëggee wax ne waaw bu mbay moo wax yéen li ngeen di xeex yéen da ngeen añaanee mbay Mbye bu mbay waxul ne moom moo boobu amuñ problème mama ak boobu mama amuta boobu problème Sainabou Mbye moo am a boob problème she's a bitter old prostitute xam ngeen yéen da ngeen yebaate yéen féministes yi da ngeen yebaate si seen biir seetaleen seen boppa yéen da ngeen di toog di jaay nit ñi loo xam ne ba pare man lu ma si gis da ngeen di jaay classe boo xam ne su ma seetee niñ droyee seen kanam kanam yi amul kenn si yéen koo xam ne am na classe bu mu war a attaquer any anybody yéen koo leen daaxa foo leen toj gis ngeen nag li ngeen xamal ni ñi ba toog si seen plateforme yi di kondamoo ne da ngeen di xas fii suñ leen fi xasee billaahi di ngeen tëdd guddi te doo leen yeewu suba li ngeen bugg a def ni ñi ne ku support boob di ngeen ko attaque soo suñ duggee ci 18 boobu di ngeen soona yéen yéenay kan boobu amut ak eh, mama problème because mama doom la ci boob raka la ci boob noor bët yooyu la ko Bob di xoolee na bu mbay moo am ak Bob problème because moom lañ fase yal nañu yàlla musal si jigéen ju jigéen ju bon xool yéen xale yu góor yi soo leen di takki dem leen di seeti yaay yi njëkka ndax ku ñulug sa jëkkër yëkka sa doom Sainabou Mbaye dem police Sainabou Mbaye rëjji rëjji Sainabou Mbaye telli telli bu Mbaye moo wax a wax a wax ba tëj brodaam tëj cousinam tëj seen waa kër moom tëjaale boppam ñoo toog lu tax ni ñu duñ ko wax hey nena maa ji bu xew Gambia ñu génnaw ñu dañ ko wax yéen mënu leen a tere ni ñi wax te yéen li ngeen di attaque nee ne da ngeen ko tooñ parce que nee ne génnagu leen ba gisagu leen ba tey mu génn def live naan lii nee na fi mu jàppa la amul jot brodaam la moo support brodaam dafa nit supportam muy Bob Keita te hey boy bu nekka young man bu nekka old man bu nekka niit na af a sister like Nena Freda Nena lekkut naanu talu dara gis nga man xam mun naa reyante ak yow waaye su wax dëgg jotee ma waxal la ko rek te yàlla tax because dama xam ne loolu du wàññi si suma mbaax dara yéen ngeen ne loo leen xamal nit ki da ngeen di toog Facebook ngeen wax ko ko hey fii kekka la nen du fi bonde koo leen fi xas mu xas leen a xas a xas ba dugg si seen rondali yaay di bale yéen da ngeen mun a xas kenn ah ah, ah bàyyi leen nit ñi nit ñi eewu nañ gis ngeen gis nga fii ku fi am sa exercise book rek yaa ngi amee dictionnaire toog munu leen fee xas kenn But pare yen KSB yen yen, why are you guys taking it so so I'm um, so personal the problem yen the problem bi mooy mama ak Bob lu tax yen yen leen being a feminist wreck and then yen fuck off to send corner Why no no no? mënu leen ko da ngeen soo leen gisee nee ne ak Bob ngeen yen ne yéen yéen li ngeen foog moo amul nee George nee ne magistrate nene ne it's not working for the government she is doing very well thank you so much yaakaaru benn góor yéen ñi fi nekk see man am a working class lady dama hey we all know that you guys are working class lady but then you depend on the cock eh, at night jëkkëri jàmbur yi rek ngeen di tëddoo ñëpp am nañ ko soo loo leen mun a xasee neene So fekkee dañ leen traumatise bi ngeen nekkee xale go see a counselor go talk to your doctors ne. na jiitu na leen sànni karawaas gi daan leen jël bu kon dootul miim moom nag li mu wax dafa leer di midi dafa stand ci rakaam ndax li ko wax doy na ko dina topp a kees bi ba fu mu em lu mu ci am jël waaye dinañ xam fight na to to the last minute and she's doing exactly that nee na lekkatut naanatut nee na toogatut nee na nelawatut bay xandoor nee na amatul sax taami tatin yëroolam bi xale bi moom dafa understand yaayam ba su yaayam ñëwee dafa daw lu nekk xale bi dafa mel ni moom moo booba bokka ndeya baay xale bi waaye dafa soo attaque ci bi moom dafa mel ni mooy kansula yaayam saa yu yaayam waxee mu ne ko dina ok nee na yéen ñi ko xamul neene na dafaa jugee koot jugee daw eren si jàmbur yëpp dugg biir këram taal sondeel di ñaan benn nelaw fi mu toog xam ngeen ñaata times lay nee na guddi du ko jël sax doom jaa dee jël nee ngee nelaw most of you guys soo leen ñëwee Facebook tànqal ñu benn ñun ñu soona yéen a ngi jàll ci gannaaw jëkkëri jàmbur yi ba pare ngeen ne am ngeen di audacity pour ngeen di point fingers at others doo leen meg soona seen hands yaa ngi clean Yen lu tax yëfi case bi ngeen bëgg ko jël personnel ba kenn du wax ku wax ngeen attaque eh na jonga yi em ci ati ñi ngeen di jongal na em ci yen yi yéen momu len fi kenn toju len fen man nak man lima waxon dem suma waxi dem moy suma waxi tay man ma yaayi boob ma yaayi xale yu yi man mané if you touch my kicks I will come for you soo sosalee suma doom yi dinaa dinaa la topp ba nga ba nga mere ma ma xam la nag xaw ma la youth bu fi am problème dinaa ci taxaw eew suma ndigga jaral na ma bu ma lekk bu ma naan Samba Mayaan bi ngeen di wax nag keroog laa ko gën a Samba Mayaan parce que fii laay toog di laaj donation I will do everything in my powers as a mother pour ma gis ne justice is done soo soo leen fogee ne mun ngeen naa yëngal team boobu yéen da ngeen di dem toog xaar parce que ñun munu leen ñoo jiijaa yéen li ngeen gom gom leen ko yéen far dangeen di faral fen yéen ñaata jigéen ñoo am problème ay sa faatee ñi nii da ngeen ko faate dafa am problème ana Khadija jaaju lu tax yéen doo leen di doxal dëgg oo oh, seen yéen nit ñi dañ am five common sense fàtte naa ne yéen seen daje bi dafa wéet most of seen kabudu bi ñi ci des two and a half lañ am sense nothing here, kaput, nothing, ready to. yéen da ngeen di pick and choose kan ngeen di xeexal bu mbay nag Gambia kenn sibu ko Gambia kenn ñeeyu ko Gambia kenn añaaneewul Sainabou Sainabou dafi def lu fi nene maaje ñu wax ko nene maaje Sainabou bindoo ni tama dinañ ko waay yow dinañ ko tëgga bem naaw da di bañ ko na Sainabou man ma man Amina Jaay jooj bi su mu holidays 29 years I will still believe my son su ñëwee case bi wax otherwise I will always ne believe ne Bob is innocent the Bob I sat with the Bob that I chat with the Bob that I know I know he wouldn't hurt a fly I know ne Bob is not capable of raping no girl waaye yéen su fekkee ne da di form group te li leen seen jëkkër yee seen boyfriend yi def moo leen naxari ngeen bugg a ñu bàyyi leen ngeen tëj suñ xale yu góor yëpp kon ñu jëm kon suñ doom yi amul jëkkër fu ñu jëm comme yéen ku leen naxari ngeen tëj ko yéen daal yéen a fi li leen góor ñi def da ngeen koo sippale suñ yuut si ñun ñu ne ñoo lanka ñoo bañ ñoo gat ba gataatoo te da ci naaj bi di ut ku ñu gat le duñ ko nangu man nag man nee leen muy neex maag boob muy naxari maag boob kenn mënumaa yóbbu ci benn page kenn maa yóbbu ma faral fen kenn mënumaa wax loo ma nangu ne waaw comme ñuy wax waa boob réebu ko waaye laal na lu tax ma war koo nangu fekkewu ma bi mu koo laal waaye waxam li ma waatal ne réebu ko gëm naa ko te ñoom waxuñ fi waxi laal de waxi réeb ñi xam ngeen yéen you guys are so immature you guys are so stupid yéen gisu leen sax the bigger picture you guys started with rape ngeen dem ba ci digga ngeen rape bidu walk woog wa rape ko wa mos na ci xale then it's not rape anymore su fekkee mos rek ngeen di wax then drop leen charges si rape bi ngeen bàyyi this young man to go home ngeen olbate ko no no. non dañoo def DNA léegi bàyyi ngeen DNA bi blood test pour ngeen seen ndax booba jur xale bi boobu bi moo wax ngeen def DNA du tey bi depuis day one booba ngay wax DNA ngeen ignore ko ba ngeen xam ne caaka colli na the whole world is listening Gambians are have are having nothing of your bullshit anymore ngeen ne waaw léegi dañoo jël blood test blood bi li ngeen ko def mooy abracadabra try nañ baby Mohamed blood mënut a génn pum there is two pints of blood I'm like chai I never knew ne Alibaba and the 40 thieves lives in Gambia little did I know ne seena bu mbay and feminist group ñooy Alibaba and forty thieves seen groupe bu ndaw seen jonge ju farox léegi ngeen waxee blood test boobu ngeen def ko mu bàyyi yàlla mu ne bàyyi na yépp ci loxo yàlla toog ngeen jël tam ngeen toog ba neex leen ne xale bi juum mooy borom kanam gu wéet gi ki nga xam ne boo ko xoolee rek gis nga Mohamed ngeen jëli ko nag ne moom tam na def Mohamed eh, di blood test xam naa nag man li suma xel di mbalax da ngeen di jël bo eh, dereti boobu tegee ko ndànka jël dereti juum boole koog Mouhamed ngeen ñëw ne booba booba jur xale bi gis ngeen yéen lool gisal li seen xel yi di mbalax dafa fekk ñun feccee nañ ko ba àgg ci ndaat saay gi ñun we are ten steps ahead of you guys gis nga suñu jaralee suñu jaralee ñu jël FBI agent indi ko Gambia ñu investigate case bi properly we will do it it's either the Gambia magistrate eh, system you understand that what they're doing is wrong, it's injustice, it's uncalled for, and the Gambians are having none of it. You buy this young man to go and mind his business, sila Gambian city no noppaleku. Why fake defu leen Do duñ noppaleku doo leen gisal su eboo code bi du génne ngeen ko Bundung yóbbu ko next time yóbbu leen ko Koyna we'll still be there. dinañ for them in time suñoo jail di dox three days ahead of the court date we will be there. yéen li ngeen di def munu leen ko ñun li ñoo def ragaluñ ko te ñeme nañ ko ndax gis nga bi boob ne bàyyi naa yépp ak yàlla si lañu boob sas ñun yàllaa yor suñ fumbukaay ñun faalewuñ li ngeen di wax wala li ngeen di def gis ngeen yéen a toll ci gaaru waale ak defante parce que su fekkee ne yéen li ngeen di wax dëgg la réep rek moo leen taxoon a jóg why all of a sudden why all this drama baby Mohammed doesn't need to die de su fekkoon ne yéen réep kees rek ngeen nekkoon Why did Muhammad have to die? Why, is, why was he locked in a car for four good hours? With all the windows up. Ma fone soy tej sa bunta sa dinga baye tuuti pour ngelaw duga. Yeen xam ngeen li moy Dey Mohammed mooy seen sànni tàccu ba pare yéen fenkat am talking about some of you feminists yéen ñi nga xam ne how a interviews eh, xaw ma interview Sainabou yéen ay say Sainabou yen a am nombaam yen i waha mama yen i waha magistrate bi yen yéen the same people yen same group wait. Yen a ja on social media take those messages because yen a ngi fong na yen yéen a ngee tiiñal yàlla bindul ko dul dee waaye bind na ko dul torox yéen yéen ay picc bi naa woon ba kowee foog ne dafaa duul maam yàlla faf dul boppam yéen da foogoon ne li ngeen doon def ni yëpp boobu ngeen koo def waaw Sainabou is guilty eh, is not guilty Sainabou dafa innocent this has nothing to do with Sainabou is everything to do with Sainabou su fekkee Sainabou yóbbu mama police seena boo lodge complain bi seena booy dem court mooy génn court Mo jooji si yaay ñëw Mo jooji si yaa dem den kan mo moom case bi Seynabou la di te ñun foofu lañ ame problème ak government bi because for two years the Gambians were interested in this case it's a rape case let this let the government uh, let the court deal with it that's that was the Gambians mentality let the court deal with it two years ñu gis ni ñoo def doomi jàmbur ji Within two years ñu gis Sainabou boom, out of the blue you guys keep calling her millionaire da ngeen that's why i am keegi 75 yàlla bu ma am kéegi 75 suma papa di sampat jeexalewut yàlla bu ma am kéegi 75 ma am ay néew di doole yoo xamante ni buñ añee tey ëllëg duñ añ yàlla bu ma am 75 di ko lekka di jënd kéeg am ku tëdd ci lopitaan bi tey amuloo garab yàlla bu ma am ké eh, naka la tuddaati 75000 kéeg am koo xam ne génnee nañ ko kiram amul fu mu fanaan a njaboota yéen you guys should be ashamed of yourselves yéen mi xajaanee kéegi 75 Kana yen yen doo nit gis nga gumbo penen na beneen soxla bu wutee tobi tax ay di tob ay pax foo ko fekk non gumbo soxla bu ñun we have a bigger fish to fry and you know our 99 problems you guys and one of them ñun suñ problem boy corruption suñ problem boy fair justice lañ Buga, Gambia Soon problem, boy, people like Sainabou shouldn't breathe the same air we the Gambians are breathing she needs to be locked up the guy is the girl is a lunatic she's a psychopath anybody any human being and I mean anybody with brains that that think and act like Sainabou needs psychiatrist intervention Duchahan. This girl was crying for help all the time. But you, the feminists, have never seen it coming. ngeen def seen groupe bu tuuti seen wang yuñ draw yi koof yi dënga God knows what toog ci social media bi di tànxal nit ñi soo leen amut loo leen tànxal nit ñi Twitter di atang nit Hey fi fii duñ leen may foo leen yëkka seen naka gi loo leen bax ñu ngeer ko foo leen ñu woo ñu wuyu leen loo soo rek ñu ngi nii dawuñ bu leen foog ne mun ngeen a bàyyiloo yuut si wala ñun yaay yi te gis nga yaay yi ci biir kër yi di ñaan ñoo ëpp téeméeri junni yoon ñun ñi taxaw ci tali bi ñu ñoo tiye gaas yéen ngeen xaat ñu ñoo tiye gaas ngeen naan def ñu moy Nobody is bullying Sainabu. Sainabu did, did, all the bullying herself. Sainabu was bullying Bob. She was bullying Bob's family. She was bullying Bob's supporters. It was Sainabu all along. Sainabu more tega, more tachu, more fecha, more wondelu. Hey, be careful what you wish for. Buriala du morom xirem ku ko wédi rek na bi Seynabou nekkee ci social media bi di tëltali Seynabou suba ba ngoon mu ngee tontu nit ñi suba ba ngoon anti euh, development saf lan They come away they will away you people they wele away. we didn't wele away for no karma Seynabou call her own karma and believe me karma is a restaurant that you get served exactly exactly what you deserve. Because the problem with Karma is, Karma's restaurant, you don't got to order anything. The menu is get, get served exactly what you deserve. That's the menu. And that's exactly what saying got. pour di wax ñun lañ dañ yërëm count me out comme eh, bi la nañ ko génne support eh, man bi ngeen di wax waaye yow ku la tëddaloon sax boob du la réeb waxuma laa Seynabou Mbaye waxuma laa rakki bu Mbaye boobu rus naa réeb boobu dereti gor mooy daw ci yaramam bi jullit piir teg ci comme li ngeen di wax ne na ñun jigéen lañ nañ yërëm Seynabou I want you guys pour ngeen jox ma seen noppa yu baax yi fataleen yu bon yi man Amina Diagne Gaye ma ne yërëmuma Seynabou yërëmuma ndeyam yërëmuma baayam yërëmuma ay rakam yërëmuma intolérance yi sëy na bu laa leen wax te duma leen yërëm denc leen su may voice su sëy na bu génnee ngeen di ko ko tegal pour mu génnal ma TikTok gis nga man li maa xeex nii pour justice pour Gambien si yëpp la sëy na bu sax su fekkee ne lii ko dal nañ ko def free ak fair rek na tegu ci yoon sëy na bu li nga saaf exactly li nga oda lañ laa saaf du bor rek ngay woote dootoo ko defati léegi man all of a sudden ma dégg ne Sainabou dafa am euh, dafa am euh, ribs problem xaw ma bones problem she needs to go overseas euh, for treatment i am like caay kaama kaama why do you bring all this wahala Sainabou was okay woo coming to social media 25 times a day to disrespect us the Gambians Seynabou na ko nee is ok sax suy xuloo nga ko is ok bàyyil xuloo bi mu aj sa tontu defal la lu mel ni Paris soo tey ngeen ne dafa need overseas eh, who is this doctor now Doctor bi dafa need glasses ruyal leen ko ruy eh, ruyal leen docteur bi docteur bi dafa need ruy Nasara saraxe fonde ak ñaari pati meew docteur bi xel mi dem na si ko seynabu dal feebaru toon niidu toon treatment seynabu ok odu tawelem di rajji rajji seynabu do sangu on social media all eyes on her tiitut rusut ragalu e ko ñebbo na tuflinanga toy tami why all of a sudden this witch this jezebel you call sass or sax Money, you know i am digital i'm like child how are you digital, Sainable? What, what network are you on? What was Sainable having that we, the rest of the Gambians, didn't have? That this guy, this girl, have the stupidity, the audacity to come on social media every single day to torment us, to bully us, to talk crap of my son and now we return in the compliment Yen feminist, yen ngeen am sañ-sañ yi ñàkk fulla ñàkk fayda toog fi ngeen toog naan ñun suñ doon ay jigéen ay yaay dañ war a yërëm thunder strike you in your sleep all of you may the devil when no get sense slap you yéen da ngeen foog ñun dañ ñàkk fay ni ngeen ñàkkee fayda ndax da ngeen foog ñun dañ am jot jënd suñ internet ab wees suñ time bàyyi suñ family si suñ jëkkër yi suñ doom yi ñoo toog and all we could think of <laughs> bilaay Sainabou dafa innocent Sainabou kay xale bu baax la su ko defee mu pakate ay xesalam yónnee ñu hey yàlla defuñu ay millionnaires may ñu mogee ji waaye yàlla may nañu lu ñoo fayee suñ kër yi suñ bil si ak luñ jëndee diw xanaa toccar ma xanaa nag yàlla am na ñu ñu baax ñoo xam ne yàlla boole na ñoom dañ ñoo xool bañ neex leen ñuy jënd ay pakati diw yónnee ñu ko xëy ñun yàlla ñoo teral démb tey soog a ñëw dogo dogo wuñ si kenn duñ kog sóori kenn it doesn't matter how rich Sainabou Mbye is kenn añaaneewu ko lim am basam la ñu fayal suñ bil si soo gisee nag Gambien si génna mooy dañ bugg a justice pour xale bi góor bi mu ñibbi ci yaayam dem toppatoo soxlaam toppatoo ay njabootam soo gisee nag farle luñ Seynabu Seynabu moo def li ko àdduna yépp mbame at force man dama am na soo leen delloo baak seetaan naa live may wax ne man dama laaj Seynabu Mbay because damaa gis mu ñëw fecce def noonu seen sam laaj caay until this guy choose from featuring to be so cocky, I'm like, nope, we're not having this. We are not having a just another Ajisar in the Gambia. Ben Ajisar, doy na ci aduna, Ajisar bi rey lu doomi do ñi. Moom fi mu nekk nii ba tey ñu ngi xalaat kañ la Ajisar moom ci boppam di dee. Ajisar yéen yéen Sainabou Mbye defut ko woogam. Sainabou Mbye daf doon copy Ajisar Why little did see none? ne Ajisar kompolooyam nekku doon di wook later on at the beginning nit ñaa ngi doon wax dégg du dégg te li ma jaaxal yéen seen féministes yi yéen a toogoon naan <laughs> waaw Ousmane Sonko ko def yéen daal yéen lan ngeen mere ay waay te ñeen a ñëw teg indi seen pen ak paper ñu nit ñu indi pen a paper ngeen wax ñu li ñu góor li leen góor ñi def ba ngeen mere góor ñi uti leen jëkkër sëy yéen féministes yi yéen ñi ci amul jëkkër toppatoo leen seen jëkkër yi ngeen génn social a yéen ay bu ebo ngeen gene saraxi bokk gene len saraxi bokk ak ñetti pen yeen moy seen sarax yeen féministes parce que da ngeen wara toga nit ñi wax leen li leen ñi def ba ngeen mer gomon ngeen fi aji wow waw aji sar liko Sonko def aji sar nga amé evidence aji sar mo toga ci social media social media ni mako waxé né mom daf doon gat bo kol senegal, ganaw gat kat yi mel ni mom ne mbir mi kompaloo la woon bu nag little did she know mbir mi kompaloo la moom because mere na boobu ba ay botam gisatu all she wanted was to see Bob locked up am na doom yoo xam ne kenn du leen laal am na doo xam ne seen yaay yi dañ teeloon a xëy guddee wàcca benn koko na wala benn doomi xaj bu naree taxaw toroxal la yàlla ci boppam moo laa xeexal nii du loo pour nga génn a xeex fii kilifa bu nekkul bu jinne am na fi problème indi Gambia wala ci wool bi gisuloo kenn génn kenn faalewu la yoo kenn ay dem koot boobu xale bu ndaw thirty two years mu am problème mu mel ni ñëpp lañ tuxa mag ak ndaw góor ak jigéen xale yi gën a am jom moo tax ma dama doon ne président Adama Barrow bu mu yuut si Gambia gis nga yuut si Gambia ak ni naaj ji Gambia eh, tàngee biñ paree pour taxawal président Adama Barrow ñoom ñëpp a daw uti voters card ne dinañ make sure ne président Adama Barrow dina delluwaat State House and def sitre biñ gisee na ñu ngeen néewal seen moromi góor doole di same xale yu faloon président bi billahi ñooy taxawaat di ñaxtu seen métit soo yéen ñi ci mer nga man wax naa la man bañuma kuy def live may def live nga ñëw nga sànni ay angry faces nga dem parce que su ma paree dama laa block yow tey mooy nekk sa last day pour nga seetaan ma man loolu ñëpp xam nañ ko si man soo ñun understanding boobu am nañ ko soo duma dee woori léegi soo dee sànni fóon bi soo leen dee sànni angry faces duma parce que dama xam ne di ngeen bëgg a seetaan Amina doo leen ko seetaan ba pare damaa xam ne ay golo ngeen parce que man yebu leen ma ba ñëw suma plateforme yéen féministes yi ngeen ne da ngeen di yónni nit ci man gis ngeen soo leen bés boo leen yónnee nit ci man ba mu ne daf ma tegal bersi ay keroog ma tegal leen raasi duma boo xam ne kenn ci yéen du ko fecc parce que maa leen gën a réew gën leen a vulgaire man I ah, look me no filter nee leen social media sëgam ñàkk a kersa ngeen di jaay ak yarade ko ku nekk mun na ko waaye nag in real life I am so grounded waaye social media comme nekkeewu leen fi dara gannaaw fen ak sos ak yabaate ku leen ku leen ñaakaasi yéen bu lii moo dina xarit social media kenn mënuloo koo ñaakaasi koo ñaakaasi mu ne dina la sosal man nag kenn duma tëggal raas yi doma man try leen ko ansi dama ñëw nag pour wax leen ne hands off Bob Keita Bob Keita yaay yépp a ko bëgg a jur Bob Keita sister si janxa yi yépp la Bob Keita brother si brother si la Bob Keita Bob Keita Gambie la nee naa leen kilifa am na problème kenn yëgalu ko yaramam ay nit ñu dul niti jinne gis nañ fi ministers gis nañ fi lu nekk am fi problème Gambien si yëgaluñ ko seen problème dañoo añ ba suur teg seen ataaya suñ paree tëdd nelaw bi ceeg kenn jógul dem fenn boobu ñu kooluñu xamut sax boobu 99 pour cent ak ñi ko support musuñu xamuñ boobu musuñ koo gis moo tax dëgg rek a wóor gis nga sooy def sooy def dara ci dëgg na yàlla rek tax yàlla ci boppam moo laa woon yoon te gis nga tiim boobu ñun yàlla ñoo niital suñ yoon saa yu ñu demee ba jaaxle ñu jël kurus si tëdd ba guddi jóg toog di ñaan buñ xëyee suba lépp luñ joon ñaan day leer nii dégg nga nimbi di yépp la gis gis ngeen ba ñu seen bu fattalee takkal ñu pot rekk ne duñu bàyyi dañ ko dénk kii ci kaw <laughs> eh, billaay wallaay talaay seen bu mbay dañ toog ñaan ko yàlla rek ñu bàyyi di seetaan yàlla te dama ko gis nga man bi man léegi-léegi dama dee wax loo xamante ni moo tax ma ne man kii suma dëkkandoor bii kii ci kaw nii borom mbaar mi du daanu man suma xarit la juboo naag moom ba lu ma ko ñaanal mu defal ma ko bi ma toogee fii mu Mouhamed deeyagut may leen su na bu Mbay reppee ba bi ma bu Mouhamed miy dee Mouhamed mooy xeexal boppam ñu naan justice fa Mouhamed fekk ñu ngi koy yóbbu dakaar ma leen bu leen woori Mouhamed mooy kiy xeexal boppam Mouhamed suñu reppee ba mu dee Mouhamed dina génne secret yoo xamante ni ñun fooguñ ko woon nu mujjee nu mu mujjee They come away, all of you, they're well, well, uh, uh, uh, let me enjoy myself so that when karma comes, I will handle karma alone. What is your problem? no. we have no problem whatsoever. The only problem we had was we were begging for karma to come like later on and deal with you. Little did we know that karma was coming earlier than we expected. That was our problem, but now karma is here. We're okay, well, we are not complaining at all. No, not a single word from us. No, no. You wanted karma, and we were we wanted the same thing. We wanted karma to come, but we thought karma was coming after two years, three. Karma did it, we didn't know. Little did we know, karma was already on its way whilst we were calling karma. So we thank God. We know they complain, no. We are not complaining, not at all, sweetie. So Seinabu, you and your kabudu, you, you, Solen Bouguer, bring in Donald Trump and his lawyers. We still won't budge. Bring in all the judges in the world, including OJ Simpson's lawyers. We still will support Bob Keita because Nyun side Binneka is the side of truth. We are fighting for the truth. We are not fighting for no kabudu. We are not fighting for the riches. We are not fighting for the, for for somebody because we wanted something in return. We fighting for the truth. We fighting for our kids. We fighting for our brothers, our sisters, our mothers and fathers, uncle and aunties. We fighting for Gambia. Telo rek mo ñu ñor leneen nak ñoruñu ngeen foog ne su ma fi nekkoon su fi seena bu nekkoon xam na ni nga xam xaaral ñu introduce la anti Amina su ko defee nga may ko ci diw yëpp noo non non bàyyi leen ma ma diwoo akaña dégg nga bàyyi leen ma diwoo akaña ak am bi rocceeku ba mel ni yéen baax na. yéen fii ñun duñ fi toog bàyyee leen boob man dama ragal ne sax nag nag yéen xam ngeen dara parce que yéen a ngi jur seen doom yi bàyyi leen ci seen kër yi soo leen ñëwee Facebook toog ngeen jël doomi jàmbur ji muy boob keeta ngeen ne di ngeen ko yàq ba du jox ba du jar dara yéen féministes yi def ngeen ko ba call American Embassy ngeen report ko ñu cancel ñu cancel visa yam bi yéen yéen a nekk xanaa dolen doo leen nit xanaa yéen doo leen jullit xanaa yéen doo leen ay gor ngeen toppa doomi jàmbur ji am bob indil boob ma foogal ne comme yéen da ngeen di act so da ngeen di act so westernized you guys are so civilized ne yéen foog ngeen ne doo leen dem toilet ba tax na ma foog ne xamoon ne is innocent till proven guilty no I am mistaking on that one. You guys is only saying who should be innocent till proven guilty. But that's that's where you guys go, went wrong. Because Zainabu was guilty from the start. It was Zainabu's guilt that was making her come to Facebook. Facebook was the only safe haven for Zainabu. That's what psychopaths do. They create their own storm and then when it rains, they start to throw tantrums ñun Gambians we no buying that de suñ bàyyee Sainabou mu jàlla ñi mel ni seyna bu bari dañ den rape victims real rape victims duñ leen mun a xàmmee real victim rape victims yi nekkuñ di wax anaka di jaaju mi te ki ko rape daf ko xam ana Aïssa ana Aïssa Fati Affarina moo toog moo toog dëkkaam di contrôle suñu système bi ñuy siis bagage xale yi ndax génn a ngeen wax ci te Aïssa Faty car macha allah ñeewut moromi moroomam mun nañoo wax ne su ko su ko neexoon def kéegi 75 waaye da koo lekk mu mujjee sa toilette ba kon loo 75 fee léegi léegi niitu ba lakkale dafa unnecessary te looloo dal Seynabou bu daf doon niitu ba lakkale. mu àndaa yéen nag ko gis ngeen yàlla xol la day fay gis ngeen lu nit di utati ci àdduna te du xol bu rafet yàqa nga ko wax dëgga su jotee buñ tegee paaka sa put bi sax waxal dëgg ndax moo neex yàlla parce que buñ nee at bu nekk benn fen la la yàlla di baalal te yéen minute boo leen toogee yéen a ngee fen kon man xamatuma ci yéen dara wax leen na bu dëgg su doon ay jigéen ñu baax ngeen ay yaay yu baax ngeen ay sisters yu baax ngeen di ngeen ko oo ndànka instead of ngeen koo dooleel yéen nag da ngeen war a bàyyi seen xel ci leen du doom yi yépp lañ doon taxal am na doom yoo xamante nii soo leen tiiñalee su yàggee loo waxati ñu ooyee la fenkat bi def ngeen ko Melvin mu pro mu mu mu setal boppam bam set ndax ne kat he is the only Gambian lawyer that went to Oxford University now in the United Kingdom am ay digréem yu set jëndul benn online degree nag teel a xëy guddee wàcca am ñaani ndeyam muy gàllaajam Melvin nag du leen bàyyi léegi ku ko fenal dina la yóbbu koor nga indil ay documents su leer ak ay seede Melvin du leen bàyyi de yéen laal ngeen laalaake du da ngeen mun a fen rek mun a wax dootoo leen ko defati Melvin léegi ku ko génn boole ko ci noon seen tam mus ah, du yéen a kii robbi mu kii bi nañ leen dem nañ leen ñu dem ma foogoon ne di ngeen toog oo oh, Seynabou ne ko Seynabou ñun say antis lañ parce que ay ko ko bi na ngeen yéen yéen a mag Ismaila ngeen waroon a oo bu seyna bu jigéen nga ñun jigéen lañ yaay nga ñuy yaay mun lañ laa war a bañ mun a mag waaye comme que yaay nga ñuy yaay nañ waxtaan ci suñ biir soo leen doon dimbale seyna bu loolu ngeen koo wax ne ko seyna bu ni takka daganee la fase daganee yow xale nga demal nga dabi sa wërsëg yàlla mun na laa indil beneen beneen góor waaye seyna bu ba tey sekoon jëkkëram bi mu ngee fey seyna bu ndax seyna bu daf ko jiiñ sàcca yéen seena ah, bu daal su jëyut nit ñi réeg mu ngi ah man nag nag nag nag nag nag nag maa waaru ci tubaabu santa mbay man daal sometimes dama dee foog ne man non man dama war change bad country me I'm going to Burkina Faso there is no way anybody can say or do to make me stay in I am returning my right ngeen war a teg bu may ne ko bu ku ñëpp bokkatu fi li nga tooy bu kees bii ni moo demee nii dafa mel ni dañ war a toog ñu waxtaan bu fekkee ne sa raka dëgga dëgga dañ ko réeb bu toogal ñu wax ak sa raka te nga génn ci kees bi ndax lii ñu gis nii muy dem justice system bi ni moo demee even doone ñun ñu ngi laa déglu yoo lañ faral waaye xam nañ ne justice system bi ni moo demee fiyaawut kon loolu bu nañ ci bàyyi suñ xel ñu liggéey rek ci lu neex yàlla ma foog ne loolu ngeen doon wax Seynabou su dee ni ngeen buggee seen doom yi ma foog ne doolu waru leen a lax seen doom yi di dóor doomi jàmbur waaye because mënu leen am góor gu mel ni boobu keeta bu soo gisee tey muy telli telli bu soo gisee tey ñu xam ko soo gisee bu di drive moto soo gisee bu toog ba mun a génnee xijaabam boobu meloon ni ko enu muuti nag yàlla boobu keeta the same guy he locked up moo ko tafal taraanga no waay yàlla du nit yéen nag soo leen sañoon am far bu mel ni boobu keeta waaye yéen amu leen ko yéen ay màggeti koko mina yu mel nii yéen kooba baraajo yi ngeen am yéen da ngeen foog ne àdduna yëpp is about what you have suma jëkkër dafa am xaalis man dama am xaalis suma mogéej bi suma moto bi suma ween yi suma boppa bi su suma ticket yéen dangeen ngeen foog ni gisal nit ñi am nañ beneen soxla bu utee alali àdduna parce que loo ko barile barile di nga romba ci mbedd bi rombaloo moomu te bés buñ laa suul doo ko yóbbaale kon lana fi jar xajaane yéen a fa soñi alal yi dangeen war di xam ne alal bi yéen yéen yéen moomu leen ko yàllaa leen ko dénka su ko neexoon du fanaan ci seen loxo su la ñëwee du ñu rey di make noise suma mageej bi dama rich I am so gorgeous yeah gorgeous under the injection under the table and all that we know enjoy sweetie and see how long it will last because wang yi ngeen di poose da ngeen war di dem di yokka péngu bi saa yu nekk xar sagat gi génne ko yokkaat si leneen loolu ngeen di def ñun nag amuñ benn bu natural bi lañ am boo moom lañ indee suñoo dee moom lañoo ñoo yóbbuwaale soo what this even this color is not my color oh. su leen ñëwee poose ween poose wang Ni sol drossi wang ngeen ñoo taxaw ñuux ci ay sarbet ngeen ñoo taxaw ne ñun ngeen ñun ngeen di ñun ngeen di xajaan dañ añaan dañ def lii seena bu formaam bi we all know dang dee jënd forma ñun xam nañ loolu because if you look at Seynabou's forma when she was hijabing you know there was nothing no day there was nothing oh her nyaas was like this this She not even get nyas. No, it's just the drawing of the nyas. She go. All of a sudden, boom, nyas don't arrive. gis nga su la yàlla teralee danga koo sant te nga dimbale ci néew doole yi waaye bu la yàlla mayee tuuti nga ekkati sa boppa commencé di diiñ yàlla sa boppa di ko diiñ mbagga yàlla dafa gaaw a dama sa mbagga te loolu leen dal yéen bi sii sena bu keegi 75 rek mu wane na anena man soto Gambia says the force like bama ma wax la cake ba uh, <laughs> nii now where is the cake tell me because the mile to where I see hey 75 cake no day if you have mbahal with three jahatu itam that's your best loco oh. They dépassé mile two government bi asoo wuñ ne every day lañ leen di reyal nag bu leen woori government bi am sax duñu leen reyal nag ak police waxuma laa yéen prisoners dañ leen ku nekk na support fi nga support ku nekk nekk si li nga nekk parce que fii ku nekkul si bu gudda bi yaa ngi si bu gàtta bi waaye doo leen nekk si li ngeen nekk ngeen di jaay hypocrite bugg a western world bi recognize leen ne you guys are doing something good no you guys aren't all you guys are doing is showing off pour ñu recommend leen jox leen dara loolu ngeen si bugga yéen dal sàmba mbayaani tubaab bi ngeen di def we'll all sit here looking all pretty with the makeup and everything and then pray to God that rain don't come oh. because if rain come and wash all that makeup on your face sweetie you going to hell huh? Chineke is my witness no be joke yéen dem leen toog dañ bugga ngeen dem talk. munu leen fee personnalité attaque kenn munu leen fee dimolins kenn munu leen fee sewloo kenn munu leen fee waxal kenn lu ñu leen munta delloo fii koo fi am bëggam rek mu ngi am sa dictionnaire toog li ngeen di def nag nekka leen ci jàmm nekka leen seen yooni fenn su leen eboo seena bu mu am rek rips problème na am ñaas problème ay problème kawar problème name because I know ne si hard kawar problème her hair so if you guys think ne yéen rek am gaming, wala yéen rek a mun a takka live ñu seetaan leen try leen di Pikonos ngeen seet na Freda nag da ngeen ko bàyyi ci wala ci nele because he's making a difference especially to the youths of the Gambia so suñ amon ten nee na Freda Gambia dina dem ten nee na rek suñ ko ame nee na Freda mi, ama Gomez. suñ amon ten yu mel ni Gambia dem parce que waxam yëpp mooy luy yóbbu Gambie kanam yéen lan mooy seen kanam seen xalaat seen xalaat yëpp mooy ngeen please western wall bi to lock our young boys up ñun ñu ne no duñ ko nangu we will let you guys you all fail Coco duñ leen ko bàyyee yéen màggati baraajoo yi kuñ wax ngeen ne di ngeen leen xas kuñ wax ngeen tëkkal live di ak attaque nit ñi di dox di am na ñoo xam ne dañoo si eh, man dama dee bëgg seetaan waaye dañ ma block may leen bu leen woori nit ki fuñ la fuñ la buggewut génne génnee leen fa gis nga nit ki man géej naa laa fonk bi ma wonee ne fonk ma soo ma jàppee ak benn baaraam ma wiccax suma loxo du la laa soo ma jàppee ak juróomi baaraam ma jàppala ak fukki baaraam boo ma joxee benn baaraam suma loxo lay def nii dooma laal fen nit ki bañ nga seetaan ko moo laa block suñ la blogué move on there are so many other platforms yoo xamante ni ñu ngi wax so many wax you la make you make more sense than all this fail Coco cocominas koo ba rajo yi nga xam ne dox nañ seen dox sa seen ndaw dañ jëndee seen ndaw seen mag nii moo tax ñu gis seen boppa ci seen bu bay doo leen fi noppiloo kenn nee na Freda dama laa wax la as a sister man munuma laa wax ne dañoo nekk ci Facebook bi duñ xuloo de su ma la ko waxee damaa fen munuma laa wax ne tam suñ nekkee real life duñ am misunderstanding ah ah parce que nit la suma la ko waxee diggee tam maa ngaa fenal waaye wax naa la ne duma la yaaxal duma la yaaxa duma la waxul lu dul sa jikko te luñ mer mer mer mer su nit génnee attaque ñëwee attaque la I'll come for your defense loolu moom is a promise te keneen ku dul nee na sax loolooy promise bi waaye comme nee na la ñoo wax dinaa la wax ne mënuma laa wax ne dinañ jàppante hundred years duñu am problème waaye jàppa naa la ndax yow yaay di bigger person than me ndax biñ tasee danga ma nuyu si dignité loolu nit ku baax ko mun ak respect bi ci yow nag man gis naa la in real life toog naa ak yow du benn yoon du ñaari yoon nee ne xam naa ban façon ngi nit nga may wax ne réccu naa lu tax teelu ma laa xam parce que nit ku mel ni yow a jara xam de koo xam ne dafaa liggéey développement kookoo jara xam soo réccu naa lu tax xamuma la bu yaaga nee ne su ma la xamoon time balaa nga doon taxaw MP ma taxawal la lu ne toj ba nga nekk MP te kon doo doon taxawal AC wala CA danga doon taxaw independent candidate nga ñu campagne Gambien lu toog ni kon waxtu bi yaa ngi ci parlement bi di fight suñ right ñun Gambien si ñun loolu lañ bëgg hey jigéen ju mun góor ga doxal sa dox nit ki nag bu la rawee xamoo turam xëy nga koy woowee bés bu ñu la xamee jaar si sa tur Gomes bi laay Gomes a gaañi xoolal doo ñoom te du duñu yàgg du yàgg yàgg ba ñuy yow bokku leen jëmukaay bokku leen bëgg-bëgg nee li ciy yow du ci ñoom let your work speak for you you have nobody to answer to you don't need to explain yourself to anybody mostly nag nii loo pour nga ñëw eh, on social media di defante ñii kooba yi ñii ay kooba yu màgget yu baraajo bu leen gis all this powder and this hairstyle underneath this powder see their face you like ki nekke who be man nag dinaa leen wax leen na leen ragal féete day xañ a bu leen foog ne tey man xam ngeen li ngeen xamul ci man man du may toppa nit ngir dama yaakaar dara ci yow wala danga maa jox dara su ma ko doon def tey million la ndax président ba le toog State House amut lu ma jénguwut pour moom ak jabaram dama daan xëy suba ba ngoon jot ñu jaral ma may saaga ñu ma saaga te xamuñ ma from Adam and Eve xamuma leen from adaman and Eve laa gëj a bokkee ñoom waaye man maay nit koo xam ne su ma la jàppee jàpp naa la bés bu ma la bàyyee nag nga réccu lu tax nga xam ma ndax boo doon puub ci suma kanam du ma xeeñ man ni may jàppee laay bàyyee mun nga fee nekk nag nga ma def ma all sort of nonsense dama dee pretend na gisuma la waaye bés bu ma nee tël nga xam ne nit ki li muy rawee nit ki suy sangu di ko simi man suma nit ñi ma ooyee suma nit de de so important to me te wax naa leen fii ne rëccu naa trop lu tax teelu maa xam nee na freedom parce que benn nee moo gën seen téeméeri nit put together nee na du nee du nee du wax du wax unnecessary wax nee foo ko fekk mu ngi ci téléphone she is making things work she is trying to improve herself and the Gambia that's the Naina that I know tey su démba doon tey ni kon tey waxtu bi fii laa doon toog di campagneal Naina ni kon waxtu bi nga biir biir palais waaye nag su yoon jeexul waaxu sel du jeex you never know ndax jigéen ju mel ni Néné jigéen ju mën góor la dafa soo ngi Néné Freda Gomez yi niit nañ leen ci parlement bi niit nañ leen as ministers niit nañ leen parce que fu góor di taxaw faj gàcce Néné taxaw fa faj ten times di gàcce te du la disrespect her believes dafa stay ak loolu ba lum ci am nag jël if she believes on something du dara moo ko koo moo ko koo teree bàyyi kon yéen AC yéen AC xaw ma yéen air condition CA How am I in Seattle God knows xaw ma ban si yee ngeen Dr. Cissé I am so disappointed I thought now you are my friend Ki mu try pour mu mu safe rakaam moom nee na Freda the last thing she needs mooy ngeen indi seen letter bu xesaw di ko print on social oh she suspended bu leen ko suspend saak leen ko dugal leen ko ci baak yóbbu ko ba ci géej gi sànni ko ngeen gis dolphin bu ko génnee indi ko ba ci taari pere bi jox ko nit ñi ñu jangat janganee ko billaahi jubal yooni Banjul xëy taal bu yàlla taal la du yéen yéen a koy fay du du siyee muy neex nee ne day dem muy naxari day dem ndax kii moo yor cumbukaayam du yéen ni nee na war a mel ëllëg yéen xamu leen ko kii ko xam te yéen nee na guddil na leen bëccëgal leen yéen bu ñu leen xamee yàllaa nee na yéen yéen a wéet yéen a ñàkk xorom waaye nag léegi-léegi nga def dara foog na nit ki ngaa yaaxa yaay mujjee yàqule man nag fii laay am ci live bi sona naa ci waxal nit ñu ko commune yu màgget yii waaye di wax ne sista nee na Gambia laa celebrate gobe sa gaaña Gambia ñu ngi celebrate ñu ngi laa wax thank you so much thank you for being the voice of reason thank you for being the voice of the youths thank you for being sister mother auntie to all these youths ñi nga xam ak ñi nga xamul